gannaaw buñ amalee jongante njiitu réew yi fii ci Sénégal mission d'observation bu Union européenne ñoom daldi nañ génn tey ngir rek amal li nga xamante ne ni moom mooy bilan wu élection yooyu lay. Comme vous le savez, l'élection présidentielle sénégalaise a été marquée euh, par une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral euh, du 3 février au mars. Et finalement, le Sénégal a surmonté cette crise sans précédent grâce à l'attachement des Sénégalaises à l'état de droit et à la résilience des institutions sénégalaises. ñu sukkandikoo ci ñoom ñu lee lii di liberté d'expression dafa daal di nekk lu am solo ci réew ngir rek lépp loo xamante ne ni luy jëmal démocratie loolu waral ba ñoom ñu lee seen gis-gis mooy campagne électorale bi. dafa daal di jaar yoon. Selon nos observations, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et Et la mission souligne que l'État, que l'élection avait bien organisée avec efficacité par les autorités électorales. te noonu lañ daal di formuler 22 recommandations ngir ñu mun bàyyi xel fii yi di ñëw. Cependant, les informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence du processus Par rapport à les audits, les audits, récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits, une tendance qui s'est confirmée de cette Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. ñu invité woon leen fii ci Sénégal ngir rek ñu ñëw mën a observer élection yooyu lee ñoom ñi leen nag daal di nañ rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne nii moom lañ daal di nemmeeku ci terrain bi.